ñu deuxième bi mooy dafa wax léegi mu ne ñaa euh, Mamadou ñaa dafa ne mhm. euh, dafa am ay receveur yoo xam ne ni chauffeur bi moo leen di entraîné jàngal leen dawal ci biir oto bi. jox leen oto après propriété bi jox leen oto. borom oto bi yëkkati oto jox receveur bi nekkoon di dagg ticket ndax chauffeur ba jàngal na ko en général majeure partie bi saa yoo tegee loolu bët mooy borom oto bi. dafa jël rakkam bu góor wala bu jigéen wala rakku jabaram affaire de cousinage affaire de frère affaire de amitié affaire de famille na ko toogal di dagg ticket parce que yaa ma doy si xaalis bi hmm. léegi bu ñu demee ba dawal benn un an yow dinaa wax chauffeur bi mu lay jàngal dawal bu ko defee boo mënee ma dàq chauffeur boobu mu seeti leneen yow ma teg la fi parce que yaay sama deret looloo am yow laa wóolu wóolu ba mu ko wóolu woon si xaalis bi moom la ko wóoluwaat ci oto bi pour jox ko dawal oto bi mesure partie boo tegee cent cent cent cent chauffeur yuy dawal bus tata ah quatre-vingt-dix-neuf yëpp ay receveur la ñu woon man dama koo teg bët daw naa 67 daw naa ligne 3 bii daw naa 61. Euh, te boo xoolee ba si biir ci famille bi la nii bokk. déggoo li ma la wax kumba ndar xaw ma sàmba ndar benn la kiif kiif deret bi la. dafa lay wax carrément waaw rakku jabaram la wala mu nekk frère am moom wala mu nekk sœur am wala mu nekk mbokk mais daf naan la kaay fi mu la mën a jaarale escalier la léegi tout d'abord li ngay def mooy que munoo dagg ticket dañ lay entraîner mooy. wax mais loolu yëpp manque de de de de formalisation bi moom moo koy waral bu fekkoon ne secteur la bu organisé. Mmh. boo xam ne ñi ñi fay yëngu yëpp moo xam receveur moo xam chauffeur ba yëpp dañu am ay droit yoo xam ne seeni employé ñi ngi koy sàmmonteeg ñoom. am na loo xam ne buñ la ko tegee ci injustice sax di nga am foo jaar mais bu fekkee yow dañuy ñëw dañuy liggéey sans contrat amul benn benn lenn benn protection boo xam ne am nañ ko day vulnérable mais mais li nga wax nii ça ne veut pas dire que euh, euh kii euh, di l'employeur dafa nekk hors la loi parce que amul lu ko tënk lu war a tax mu mu mu mu teg yëf yi la morale ça ah, vient après le le le le l'aspect moral l'aspect <laughs> moral l'aspect moral moom dañ day day xaaragum mais day si liggéey. Euh, on dit il y a y a le business amul. amul sentiment uh-huh. amul sentiment. mu ngi créer emploi voilà donc d'où l'importance vraiment que ñoom ñu formaliser ba nga xam ne secteur bii nii képp ku ciy dugg nga war a jël ay doomu aadama di leen liggéeyloo aussi nga am foo leen war a teg yow mi aussi nga am taxawaay bi nga war a am ba nga xam ne. ñii kenn ku nekk ak xam ak yelleefam dañ koy respecté. ci benn simili ñu daal di ñëw ci Pape. waaw dama doon eggale mais macha allah tey moom dinaa la yóbbuwaat Kajoor ak Bawol ah tey moom dama lay fekk si pour pourquoi ma lay fekk si mooy ko dafa am fu ma tolloon ma ne la euh, euh, dinaa la répondre damay ñëw si euh, borom oto bi bi mu jëlee mbokkam ne ko munoo dara xamoo dara amoo xam-xam léegi dama lay yóbbu si receveur bi nga xam ne mun na dagg ticket mu entraîner la léegi da lay former ngeen bokk kaaf bi toog xat xataay bi noonu ngeen wala sax moom mu taxaw. en général ki ñuy former mooy toog ki kay former day taxaw parce que siège bi benn la imaginez loolu léegi daf lay forme ba nga mën gis nga ka taxawoon doon ko former ñu ne ko non léegi yow daal xam na bon xam naa am na benn oto. yooyu da nga ko dund wala. Eh, dama ko dund man daw naa quatre lignes. <laughs> léegi léegi ñu remplacer la par koo xamante ne famille am moom foofu la mu dàq la teg ko. waaye loolu dàqin bu rafet bu nice good fine du am trace <laughs> déggoo ma wala daf lay daf lay dàq si si d'une manière non am naa oto bi war a génn léegi bàyyil moom mu continuer comme moom mu ngi soog a débuté waaw yow comme yow ancien nga léegi am naa oto bu war a génn <laughs> garage bu paree ma jox la ko quoi mm-hmm. voilà nga nekk titulaire bi foofu yow moom vraiment ah moo yow nice good fine yow liggéeykat na mm-hmm. dàq na la pare nga si yow oto bi boo ko séenee bàyyi lañ lay wax léegi dañuy jëlaat kooku formé nañ ko mu nekk receveur loolu doyul de escalier la si kaw la jëm mm. dañ koy dañuy dañ koy naan place chauffeur bu nag teg ko bët del xool chauffeur bi des fois boo daggul ticket client yéegul xoolal chauffeur bi nu muy dawalee parce que foofu nga jëm waa ji da lay jàngalaat d'accord kon donc léegi li kii di wax nii mm-hmm. dëgg la parce que dañ leen dañ leen a féetale informel ba ñoom ñu dund ko parce que si secteur informel lañ nekkoon kon foofu il est temps jub juba jubbanti jubal il est temps mu dugg foofu moom. d'accord waaw lijjanti transporteur yi nga xam ne dañuy jël li moom di ko paccal ba ba ndox mi jeex ah ñu sànni chauffeur yi. jeexalee loolu dinañ dinañ ci ñëwaat.